si weeru koor gi nu jib DAGE bu ministère de l'emploi de la formation professionnelle di soxna Ami Mbacké responsable politique si parti bi di APR si Touba mi ngi amal ndimbalanti ngir nag gàttandu weer wi jàppale askan yu ko yellool fii si këram si Touba Janatul Mahwa mu doon responsable politique mu doon dëkkaale joxe ñaale wala sax ñu doon romb gis ni kat mi ngi joxe ñëpp jaar nañ fi mu jox leen seen wàll si ceeb bu takku bi ak suukar waaw incha allah bu tànk yi mooy comme la dage Ami Mbacké macha allah di ko ñaan jàmm doon distribuer à l'occasion du Ramadan des denrées alimentaire di ko jox macha allah euh, population yi moo toon tey ñu ñu macha allah jël si suñu wàll di ko jërëm bu baax baax macha allah. kontaan nga macha allah alhamdulilah tabaaraka allah taxawaay si biir euh, communauté bi macha allah ñu ko ñaan sama borom yokk ko. gën ko dëgëral mu gën am taxawaay bu rafet macha allah fa ah, lekkul ba fàtte kenn population yi gërëm nañ ko ñu ko sant baax baax alhamdulilah rabbil alamin ndimbal yi kenn wuteewu ko si ñi muy àndal si wàllu politique si Touba tamit ak tamit si askan wi ñiy romboon jaar fii doon wuti sax nag lu ñu yóbbu seen kër gëmewuñu ko ginnaaw bi leen soxna si woowee jox leen lu tàkku ñu yóbbu seen kër ceeb bi Mbacke Balla ay lii nga ñu jox nii bu demee ne yal saaku ceeb bi nga ñu jox bu demee ne yàlla nga ñu joxaat lu mat ku ne saaku ci kat Macky Sall e ana ceeb moo di piis bu yees am na dërëm am na ci mbubb am ci turki am ci dara Macky Sall moo di piis bu yees moom la ñu àndal suba moo démb moo tey te mooy bëkk démb te moo di ëllëg moo démb moo tey mooy bëkk démb xel da ci ëllëg magee yaanu moom tey ak suba Macky Sall yaanu moo barke borom Daaru yaanu moo yaa di ndëndam buur tiim nga ci jéeri jee Sall deg du la jam naaj du la tàng yaa di ndëndam buur tiim nga ci jéeri ji ma ne ko magi mii def leen ko ni ko yàlla def mu noppal leen ku ko ci defut ni ko yàlla def mu jaaxal leen te du ci man dara soxna si lu ko jiitu suba si amaloon na ay audience jëmale ko si jeune fille yi nekk si biir Touba te nag amuñu màccu mu fas leen jàppale si ngoon si dem na seeti ay groupement de femmes ba si guddee guddi sax nag si mbooleem quartier yu fasante ko si biir Touba ngir nag jàppale leen ñu mën a bénéficier wu si formation si wàllu yu bari